coupera le micro. Je suis désolé, vous avez dit que c'est trois minutes et que pour les groupes, c'est... Les présidents de groupe qui ont cinq minutes, ils sont okay, deux. il n'y a pas de problème. Je, je, je tiens, je tiens à dire d'abord à tout le monde, je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam baaxut ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokk Sénégal bi muy Sénégal ba léegi ñaari at rek le budget yokkuwul mooy crise 1979 ak après dévaluation budget dafay yokku du dellu gannaaw nañu bàyyi félicitation budget bi yokku na la ñu war a xool mooy ci ban proportion la yokkoo suñ ko seete d'année en année te loolu professeur Sall léegi wane na ni ñu ngi ci benn baisse parce que tendance bi ñu newoon génn nañ ci ba léegi wàññeeku nañ ci ñaari poñ muy benn ñaareel bi ma ne na ngeen yërëm sénégalais yéen monsieur le ministre budget bi mun naa ne 86 virgule 8 pour cent recettes yi travailleurs yi ak ménages yi ñoo koy supporter 86 virgule 8 pour cent entreprises yi Sénégal duñu ñu suffisament de d'impôt te ña ca nekk di def seeni luubal parce que li tax travailleurs yi di fay mooy dañ leen retenir à la source ñi ca nekk di def seen luubal bu ñu leen jàppee ba redressé seen ci ay milliards yow mi yaay jël sa big ne baal naa leen ko gis nañu remises gracieuses yi gis nañu amnistie fiscale yi ak yeneen ak yeneen ci ay entreprises yoo xam ne yu solvable la ay milliards yu milliards ñu koy sànni ca booba jamono boutiquier bi nekk fii ci bopp koñ bi su fayul patente cinquante mille ngeen envoyé ñu tëj boutique am yërëm leen sénégalais yi chaque fois su ngeen buggee atteindre seen objectif lu ngeen di def créer de nouvelles taxes yoo xam ne ñan ñoo koy supporter c'est le petit peuple c'est les petits sénégalais et c'est les sénégalais de d'en mais ñi war a fay duñu fay daaw lu ngeen def créer ngeen une taxe sur le ciment nga xam ne ñi koy supporter mooy sénégalais yi bëgg kër te mënuñu ko am wala ñuy tabax di góorgóorlu ren yéen a ngi bëgg a modifier les barèmes de redevances parce que 18 pour cent de bi ngeen bëgg a yokk ci recettes non fiscales yi xam ngeen ni mënu leen ko am ca boobu jamono même ci biir travailleurs yi ñu a fay impôt duñu ko wax keroog depuis code 2012 bi depuis code 2012 bi amatul ñu am droit comme incitatif amatul benn revenu du bu député ministre du bu fonds commun du keneen kenn boo xam ne war nañ ko exonérer te tey député yi fi nekkee man de 1500 lañ ma dagg impôt ci boobu jamono enseignant buy feyeeku 400000 ñu koy laaj 70000 francs d'impôt du yoon euh, xaalis bi jëlee leen ko fi ngeen ko war a jëlee ji parce que xam ngeen fi niche fiscale yi nekk. ñu dellu su ngeen demee ba war a nag évaluer mais prévision bi baaxul parce que 349 milliards ngeen yokk ci budget bi ci jamono jooju tey yéen a ngi 84 milliards de gap administration fiscale def liggéeyatul ndax politique directeur général politique directeur des domaines politique ku xëy dem def seen meetingu 100 millions ñëw toog moo tax gab yi di am ngeen boole soo boolee gab yi ak li ngeen wax nous sommes à plus de 450 milliards boo xam ne moom ngeen ni laaj ñu yokk ko te xam ngeen mu mun leen ko am ma dellu si ni su dépense jotee ngeen jël marché yeeg lépp jox ko tubaab yi jox ko étranger réew mi dañ koo tay la tey étranger yi pétrole bi ñu jaay ko zircon bi ñu jaay ko maa ngi jéggalu parce que 3 minutes mënuñ ci si le budget voté n'est pas sincère tous les projets qui y sont adossés ne seront pas réalisables où est votre terre que vous aviez inaugurée en grande pompe dites-moi où se trouve votre building administratif wax leen ma ban étudiant mooy jàng université Amadou Mahtar Mbow wala université Saloum yi ngeen inauguré woon uniquement pour faire du fumage euh, politique li am ba am mooy deuxième facteur bi c'est les mauvaises performances de fiscale wax naa léegi dañ ko politiser à l'extrême dans ce pays on la tortuosité et la contre-performance une administration qui enchaîne deux trois années de gap de plus de cent millions cent milliards ba pare on peut promouvoir ki fa ne woon jox ko caisse de dépôt consignation après l'avoir donné au petit frère qui a fait n'importe quoi les derniers rapports de DPE wane na ni am nañu capacité vingt cinq pour cent sur pression fiscale bi te yéen quinze pour cent ngeen am foofu la seen problème nekk te munu leen ko def et vous voulez toujours reporter tout sur les populations les faux arguments ba léegi wala les vraies raisons blanchiment de fraude fiscale fii la ñu toog avril 2012 ma bind lettre directeur général des impôts et domaines ne ko fayeekul Petrotim suñu xaalis taxe de plus-value bi ñu waroon fayeeku ci gannaaw bi ñu defee seen i maguy diggante président rakkam ak Aly guy Ndiaye ak euh, Frank Timis mais loolu ñàkk nañ ko mais suñu demee ba di jaay di spéculer ngeen war a fayeeku taxe de plus-value vous êtes inspecteur des impôts vous savez ce que je dis vous se connaît très bien li Cheikh Gueye di wax kuy tux ak kuy laxas poon xamante nañu vous savez très bien que waroon ngeen fayeeku et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant loolu dañ ci war a fay impôt à partir de maintenant alors que le code de 98 ne l'avait pas exonéré loolu moo leen andil problème yi su ngeen jógee bugg ko teg ci dog ci ndodd sénégalais naan prix pétrole ak prix nangam nangam te ñu war a fay du ñu fay ñetteel bi copinage fiscal bi ngeen nekkee toog nañu fii daaw ma bind ci benn dossier ADAX interpellé woon naa ci président Moustapha Niass mu ne moom bokkatul ci société booba wala société bi ñuy liggéeyal OREX may leen 100 milliards de redressement fiscal ngeen bugg a njuuj njaaj ba ñooñu duñ ko fay tey yow mii avril lettre en date du 12 avril bind nga ab lettre ne suspendre nga la perception de ces redressements fiscaux 100 milliards mooy déficit budgétaire bi ngeen am tey déficit fiscal bi ngeen am pourquoi multinationales yooyu ñëw fii fraude fiscale duñu ñu fay ngeen bëgg Sénégalais di continuer di fay ay taxe de plus-value ci ci ceeb beeg ci diwlin beeg ci lu nekk foofu la problème bi nekk ñetteel bi wax naa la ko fii bi ngeen ko defee it am na lettre boo jël fii en 2018 ne sànq ñi ngi tudd la fameuse euh, taxe locale yow jël nga lettre keroog rek exonéré ci le secteur hôtelier pétrole euh, hôtelier du moins parce que Racine si seen xarit la wala seen militant la te day def lobbying nu ngeen buggee réew mi vous outrepassez vos propres compétences ñii di génn fii ci assemblée nationale bi xamuñu ni la loi fiscale est du domaine exclusif de l'assemblée nationale ministre amul droit daal di effacer dette fiscale et vous prenez vous des documents pour effacer la dette fiscale ayez le courage de dire la vérité au Sénégalais seen cuune seen ñàkk bën ak seen ñàkk patriotisme ak ndëng gi ngeen jiital ci seen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétent mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple pàccu Sénégal boobu bi nga xam ne xaalis bi ngeen di doon jëlee ci ñoom timis ak ñoom ñeneen ak ñeneen di ko jox ay vingt cinq mille ak vingt mille pour ñu voter leen ñooy doon les premières victimes de lii réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar je vous remercie. D'ailleurs, sénégalais ont été lâchement assassinés par la puissance colonisatrice de l'époque, la France. dont le président continue à sillonner l'Afrique pour donner des leçons de démocratie, simplement parce qu'ils réclamaient leur prime. 73 ans plus tard, ce que votre gouvernement serait prêt à abréger la controverse sur le nombre réel des tirailleurs sénégalais en procédant à l'exhumation et l'inventaire des corps ensevelis dans des fosses communes, dont l'une au moins a été dans le camp de Tchare actuel, ce qui permettrait de les doter de de les réhabiliter, réhabiliter leur mémoire avec la révision du procès unique qui a été fait aux survivants, mais également de réhabiliter matériellement leurs héritiers qui ont été spoliés, spoliés de leur solde. La deuxième question, c'est que la presse a rapporté que le président Hollande aurait remis à son homologue sénégalais l'intégralité sous forme numérisée des archives administratives françaises relatives à cette affaire. Peut-on savoir si celles-ci sont complètes et quand est-ce qu'on pourrait les consulter Monsieur le ministre, je vous avais interpellé en commission technique sur l'impartialité ou la partialité de la justice dans le traitement des dossiers lorsque ça concerne des acteurs politiques. Les rapports sont foison, Petrotim IGE 2013, King Fat IGE 2013, Caisse de sécurité sociale IGE 2013, TF 1975 Bertin 2013 navire pétrolier Olenda Lonase Sécuriport Sénélec Caisse de sécurité sociale CSS COUD timbre fiscal à DGID ASER autant de dossiers où des pontes du régime actuel ont été épinglés pour des faits extrêmement graves par l'OFNAC, la Cour des comptes, ainsi de suite, et qui ne connaissent aucune suite aujourd'hui. Si je reviens, c'est que votre réponse ne m'avait pas satisfait parce que vous nous aviez dit simplement que à votre arrivée au ministère, vous n'avez trouvé aucun dossier, c'était transmis. Mais connaissant les liens hiérarchiques qu'il y a entre vous et le procureur de la République, puisque c'est vous qui donnez les ordres de poursuite pour certains dossiers, mais vous avez aussi des retours d'informations. La preuve, vous avez été très prompt à venir ici pour porter procureur via le procureur général pour la Alors, nous souhaiterons savoir quel traitement est apporté à ces dossiers-là. Nous ne vous demandons pas de répondre, de parler de dossiers dans, en cours de traitement judiciaire dans le fond. Mais ce que vous avez fait, ce qu'on vous avez demandé lors de la commission technique sur l'affaire Khalifa Sall, par exemple, c'était sur la question de l'immunité. Aujourd'hui, les Sénégalais la CRI jusqu'à présent, c'est un seul bord politique. Et nous savons très bien que si la CRI avait été appliquée de manière impartiale, évidemment, beaucoup de gens qui dandinent aujourd'hui dans le régime auraient été en prison. Euh, encouru dette bi mooy bor bi Sénégal sur 2020 mi ngi ci 8 076 milliards muy 53 pour cent ci PIB bi intérêt dette bi mi ngi ci 364 virgule 8 milliards 10 virgule 21 pour cent des recettes et 2 virgule 4 pour cent du PIB c'est-à-dire tey bés bu ne Sénégal dina fay citoyen sénégalais bi bés bu ne dina fay lu ëpp un milliard ci intérêt la dette bi dette bi jaaduwut argument bi ngeen di wax nag mooy nañu cité ban réew ci àdduna moo dul leb dëgg la réew yëpp ay leb te réew yu ëpp bor Sénégal bëri na waaye réew yi ngeen di tëkkale seen bopp di comparer seen bopp dañu dajale ñett li ci ëpp bokk surtout nag réew développé yi ngeen di tudd benn bi mooy dañoo am une excellente capacité à mobiliser les ressources fiscales soo jëlee zone union européenne bi ratio recette fiscale ci PIB mu ngi ci 40 pour cent soo jëlee zone OCDE bi mu ngi ci 35 pour cent boo ñëwee Sénégal yéen a ngi ci 17 pour cent kon kooku mënu leen comparer seen bopp ak ñooñu parce que ñooñu dañoo njëkk a def seeni effort ba mun a dajale alal li tax nag fii mënuñu dajale suñu alal suñuy recette li ci ëpp mi ngi jëm ci li ñuy wax les mauvaises pratique fiscales keroog fii dama la interpeller ci lenn nga tontu say député tàccu la waaye yow li nga tontu xam nga ni loolu amut te maa ngi am fii benn arrêté boo xam ne yaa ko signé woon 2014 bi ngay nekk ministre du budget ci arrêté boobu da nga ne woon indemnité pour frais de yi dañ koy imposé arrêté baa ngi nii soo ñëwaatee 2019 ne indemnité boobu duñ ko imposer ban Ablaye Daouda Diallo la ñu war a gëm wala la ñu war a comprendre te ba nga koy wax xam nga ni indemnité boobu c'est imposable mauvaise pratique fiscale yi bokk na ci wax nañ léegi convention conventions daaw fii la ñu toog ñu andi assemblée convention fiscale ak Luxembourg ma taxaw fii ne leen baaxul ci senegal def nañ kook Île Maurice baaxul ñépp taxaw ne baax nañu wote ko waaye tey topp ngeen ñu si ndax maa ngi nii ak lettre bi ngeen bind Île daa di dénoncer convention fiscale bi te li tax ngeen dénoncer ko mooy ba ngeen ko signé lépp luy entreprise minière wala pétrolière dañoo domicilier foofu pour bañ a fay impôt kon contradiction yi am seeni politique ak milliards yi mii perte loo Sénégal kenn xamul nu mu toll ñaareel bi mooy réew yooyu dañoo moom seen monnaie dañoo am seen monnaie am banque centrale boo xam ne mooy définir pour émission monétaire bi mooy définir les taux d'intérêt waaye mooy définir surtout la politique de change loolu amu leen ko kon amu leen politique monétaire ñett mooy yor mbir mi politique monétaire politique budgétaire ak politique fiscale amu leen politique monétaire politique fiscale bi baaxul su ngeen bëggee leb ci condition boobu di tëkkale seen bopp ak France wala États-Unis da ngeen di ndax seen bopp ñeenteel bi mooy réew yooyu fexe nañu ba seen alal seen ressource naturelle ñu gérer ko ci nu mu gën a baaxee fii nag du loola te suba dinañ ko wax ak ministre du pétrole parce que xaju fi les pouvoirs publics ñu ngi war a voté 120 milliards pour les pouvoirs publics 77 milliards pour présidence de la République 8 milliards pour HCCT 6 milliards pour CESE pour secrétaire général du gouvernement 120 milliards yoo xam ne dinañ ko voté waat fii sans débat ci ay condition yoo xam ne nañ koy voté amul débat execution bi c'est opaque amul benn contrôle bu ñu ciy def boo jëlee li ma gën a xam muy institution bu mel ni assemblée nationale. assemblée nationale c'est une zone de non droit budgétaire. wax naa fi fraude fiscale am na assemblée nationale te yow xam nga ko ndax say service redressé nañu assemblée nationale wax naa ni ñëpp gis nañ ni blanchiment d'argent am na assemblée nationale j'espère que sax blanchiment de drogue wala drogue bi ñuy tudd egsi wu fi ndax am na député boo ne xam na ci lu bëri wax naa fii nii euh, blanchiment d'escroc public am na assemblée nationale ndax commission d'enquête parlementaire bi doon essayer blanchir ay nit j'en pour féliciter l'OFNAC qui a déposé rapport sur la table du procureur ki a confirmé li mu wax yépp ci 94 milliards yi et qui a demandé l'ouverture de de contre les personnes concernées gàcce dina am fii ci assemblée bi ma waxaat ni non respect des règles de passation de marché public am na assemblée barki démb directeur général ARMP wax na ko surfacturation des prestation am na assemblée et j'en profite pour demander bu OFNAC wootee nag na assemblée uyu ji ci dossier boobu Euh, wax nañu distribution d'argent léegi rek am na ancien groupe parlementaire ancien président groupe parlementaire bu ne 10 millions yi mu doon jot da ko doon séddale